carte d'identité la salaamaaleykum ay carte d'identité lañu war a fii di sàcc Serekunda la Gambie ay carte d'identité lañ paquet du carte d'identité paquet du carte d'identité lañ yor fii di ko sàcc di ko wote paquet du carte d'identité la mi ngi nii Gambie la xewee Serekunda fii la xewee paquet du carte d'identité la paquet paquet du carte d'identité la paquet ay paquet lañ fi fekk sama gars yi Serekunda la xewee Serekunda la xewee paquet du carte d'identité la paquet du carte d'identité la paquet lañ sàcc Ah, affaire yaa ngi nii sareet laa la koy paquetu carte d'identité la man la Abdou Aziz Gambi waa nit dëgg maa leen koy wax Gambi la koy paquetu carte d'identité li ñu doon wax na amut amut am na mi ngi nii paquetu carte d'identité la paquetu carte d'identité la Gambi la xawee Gambi la xawee yéen Dakar matin Abdou Aziz Gambi maa leen koy yëgal Gambi la xawee Serekunda paquetu carte d'identité lay sàcc paquetu carte d'identité lañ fi indi ay sàcc la dafa leer këyit la ñuy dafa leer. dafa leer téye leen yi dafa leer. affaire li ñuy def baaxul waa affaire li ñuy def baaxul nañ bàyyi sàcc gi nañ bàyyi sàcc gi.